Yen soppey mbokki Sénégal mbokki àddina rawate la yéen ñi fii ci diwaanu Njàmbur ak li ko wër ndaje bi ngeen doon xaar yegsi na ginnaaw xaar ak mbas mi di covid 19 juróomeeli édition journée islamique et culturelle de la rajo Leral FM 104.6 de Louga ñëwaat na juróomeeli édition bi ñu jàpp ko ci ñaari fan jàpp ñeenti fan ci yor avril at fële ca place publique Mansourbouna jàkkaarloog mairie El Hadji Djili Mbaye seen programme diine bu neex seen programme bu am solo seen programme bu fasantikoo ñaari fan ci weeru avril bu 9h jotee ñu ànd ak yéen ci cérémonie officielle bi sous la présidence d'honneur d'El Hadji Bouya Amar gouverneur de la région de Louga de madame Mariama Traoré préfet de la commune de Louga monsieur Moustapha Diop maire de la commune de Louga monsieur Amadou Mbéry Sylla président du conseil départemental de Louga Eliman Ndiaye directeur Daarul Istikhama imam Galadia Ka président mouvement Abibullah Sy directeur Daarul Iman Cheikh Mohamed Gueye président Mouchaf Ibnu Oumayri Oustaz Makhtar Fall président ONG Abi de Louga ak maire commune bu féete fii ci région de Louga famille feu El Hadji Amadou Sakhir Lo bu Coulibaly pharmacie Serigne mbay bu Louga monsieur Abdoulaye Sarr MG African Sport Stratégie kilifa yooyu yëpp ñu leen di xaar ci cérémonie officielle bi ak ndaje bu am solo yemook conférence bi ñu war a ànd ak docteur Mouhamad Ahmad Lo bu 9 jotee docteur di ci waxtaan ci la méthode islamique pour un développement socio-économique et culturel bu 22h jotee ñuy ànd ak yéen ak ndaje bi xale yi doon xaar yemook anasi du neex ak waa troupe xale yi nga xam ne ñoo féete fii ci diwaanu Louga le 3 avril bu 9h jotee ñu war a ànd ak yéen tamit ci journée alxuraan di concours alxuraan bu am solo rajo Leeral FM lëkkaloo ceeg fédération nationale des écoles coraniques du Sénégal képp ku daara yitteel ndaje boobu bul ko wutee le 3 avril bu 22h jotee yéen jigéen ñi yéen ak moom association soppey leeral fm taxawal opération kay muuru foofee ca place bu na jàkkaarloog mairie bu Louga waaye tamit dinañ ci ànd ak yéen yéen ndongoy ci loolee di exposé bi nga xam ne dafa jëm ci technique de dissertation philosophique ñu koy animé dañu féete foofee ca BES consulting voyage bu Dakar yéemut foofu dinañ ci ànd ak yéen tamit ci remise de cadeau ak waa baytul atfal le 4 avril ku ne 4 avril sa xel dem ci l'indépendance bu fetu indépendance bi jeexee ñu ànd ak yéen ci journée jàng du wees buñ nee jàng du wees xel yi dina dem ci njàngam diine ci ñi nga xam ne nag ay adulte lañ ba ci ñi nga xam ne tamit dañuy soog a door journée jàng du wees fële lay amee ca place Mansour Bouna Ndiaye jàkkaarlook mairie bu Louga kon mbokk yi ak yéen jigéen ñi bu ko kenn wute bu 22 heures jotee ah mbokk yi ñu sañ sawaat ba rafet delluwaat fële ca place publique ànd ak xale yi ci anachid yu neex ak troupe yi nga xam ne ñu bàyyee ko ci diwaanu Ndakaaru mbokk yi kon programme baa ngi noonu di juróomeelu édition journée islam islamique et culturelle bu rajo Leral FM 104.6 de Louga rajo Leral FM di ci invité ak di ci woo yeneen rajo yi nekk fii ci biir Sénégal rawatina ñi féete fële ca Keppaax ca diwaanu Kaolack leeral bu Podor leeral bu Ziguinchor ak waa Salaam bu Mbàkke te ñépp ñu leen di woo ci ndaje mu am solo boobee yéen ko doon laaj yegsi na juróomeelu édition journée islamique et culturelle de la radio Leral FM de Louga du 2 au 4 avril 2022 à la place Mansour Bouna en face mairie El Hadji Sidi Mbaye de Louga kon bu kenn wute di leen woo ci rajo Leeral di cent quatre point six mbokk Safir Service seen agence de voyage bi ngeen taamu dikkaat na ak offre bu neex ci programme bi nga xam ne moom la tëral ci biir weeru koor wi ci fukki fan ak juróom yu njëkk ak fukki fan ak juróom yu mujj yi programme boo xam ne juróomi fan la ca Médine ak fukki fan fële ca Makkatal Mukarrama ngeen mën a amal seen ziar amal seen umra waaye tamit teewee julli naafila yi bind bi nag door na te dina jeex ci fan yu néew képp ku ci bëgg lu gën a leer mën na leen jege ci seen bureau féete ci kër Massar rond-point guy gi ci wetu clinique Serigne Saliou wala mën nga jokkoo ak ñoom ci 78 186 71 71 78 186 71 71 wala nga jokkoog ñoom ba léegi ci 77 106 78 78. Safir service di leen booleeg ay guide yi nga xam ne seen xam-xam dafa màcc lu jën ci wàllam amal aj umra ak ziar di leen gunge ci lépp loo xam ne rek mu ngi leen fay xaar bind bi nag door nañ ko jafe-jafe ci dem amal aj ak umra jeex na tàkk ak kër gi di Safir service. jataayu fatwa mi am lu la ump ci sa wàllu diine jaaxle jeex na leeral fm jagleel na leen seen émission bi di alfatawa alfatawa di émission buy tontu seeni laaj yu jëm ci seen wàllu diine àllarba bu jot vingt et une heures ngeen ci ànd ak al oustaz Abdallah Baba Dieng mu ci feggoo ak ak docteur Mouhammad Ahmad Lo ak seen émission bi di al fatawa ku am ab laaj jëmale ko ci émission fatawa mën nga koo bàyyi ci numéro bii 77 396 42 42 nga mën faa bàyyi sa laaj ci whatsapp bi kumpa tàggalikoo naag yéen ci lu jëm ci seen wàllu diine عزمات يميني لو عندي عمر يكفيني نشرت تعاليمي alhamdulillah wasalaatu wasalaamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala mbokk auditeurs yi nga xam ne yéen ñuy topp ci seen émission alfatawa bi ngeen di ànd ak cheikhana ak docteur Mouhammad Ahmed Lo hafidahullahu wa raa ñu leen di ziyaar moo xam yéen ñi nekk ci biir Sénégal wala ci biir Afrique moo xam yéen a ngi ci Europe wala ci Amérique wala ci Asie wala sax ci yeneen continent yi tey nag yàlla def Ah, fatwa bi wala émission bi ñu koy def fekk cheikh bi ma nga ca Maroc war a euh, teewe euh, ay étudiants yoo xam ni dañuy soutenir seeni thèse moom mu war a bokk ci ñi nga xam ni ñooy examinateurs yi euh, ngir ñaari thèse yoo xam ni tey benn bi ci àllarba bi la beneen bi suba ci alxamis bi Cheikhna bëggoon nan euh, wax dëgg yàlla bu la ñoo dugg ci fatwa bi nga leeral ñu tuuti ci euh, tukki boobu incha allah rabbi ñu doogay jukki lenn ci li fi rot ci laaj jazakumullahu xayran إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن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 di leen di ñaan borom bi tabaraka wa taala mu defal ñu tawfiq dëgg la Cheikh Abdullah noonu yi nga ko waxee noo ngi fii ci Maroc wuy si woote boo xam ne dafa jóge ci université Assane 2 muy jaamiatul Hassan Assani am ñaari thèse doctorat yoo xam ne ay marocain ñoo ko bind euh, ñu invité ñu ñu war a bokk ci commission bi def soutenance bi alhamdulilah benn bi tey def nañ ko ci suba xaw naa diire lu mat ñeenti waxtu euh, bi noppee it alhamdulilah gis nañ ne ab tees la boo xam ne boroom sonn la ci coono bu méttee métti ba biñ ko gëstoo daal ba noppi jox nañ ko daraja ji nga xam ne mooy jigéen a kawe ci seenub université mu am doctorat kon tey muy mbokk moo xam ne Zakaria la tudd dëkk fii ci Casablanca muy munaqasha boo xam ne mbooloo mu bari teewe na ko ci ay bokkam ak i xaritam ak ñaari waajuram ak sax mboolem e, lu ëpp ci étudiants yoo xam ne nekk nañ ci faculté boobu yi mu nekk wala ñu nekk sax ci université bi beneen bi ci des itam suba ci alxames ji lañ ko war a xëyee ci waxtu ñu ko xëyee woon ci bi ci des rek ñoom ñaar ñëpp it benn bu ci ne yàlla dogal na tem ba ci lim jëm mooy li jëm ci wàllu chia euh, ci eh, réew yi nga xam ne mooy réew yi Afrique yi ak ni mu fi tàmbalee tasaaroo njëkk bi dafa jëm ci li dox diggante maanaam chia ni mu amee fii ci Maroc ak ni mu fi tasaaroo yan béréb lañ nekk yan anam la ñuy feeñ seen situation ci Maroc daal loolu la jël jàngat ko ci njàngit woo xam ne ci wàllu social eh, leeral na lépp loo xam ne eh, nekk na ci biir Maroc ci loo xam ne lu aju ci loolu la joxe it ay proposition yu am njariñ yoo xam ne jombul ne responsable yi nga xam ne ñoo doon déglu thèse bi ak nar koo gis ëllëg dana am ay njëriñ yoo xam ne dana leen ko jëriñ bu ëllëg bi it dafa dugg ci di comparer diggante chia ak ahlu sunna ci benn bunt ci bunti pas-pas yi muy li jëm ci ashrafu saa muy eh, mandarga yi nga xam ne mooy wane ne saa maanaam yomal qiyaam soreetut nan la ko ahlu sunna gisee ak eh, waa chia nan lañ ko gisee thèse boobu loolu moo ko tax a jóg suba lay doon ki ko bind ab étudiante la jigéen la moom lañ war a defar suuf soutenance am moom itam suba ñaan borom bi tabaaraka wa taala mu àggale lépp ci jàmm kon Cheikh Abdallah ñu bañ a guddal lool gannaaw mu leen nuyoo nuyu ki nga nekkal ci xarala gi bismillah barakallahu fiikum cheikhana wa jazakum allahu xayra cheikh bi kii nee na koor gi mi ngi nii di waaj a ñëw bëgg na daal ab ndenkaane boo xam ne da koy teg ci loxo jullit ñi ndax ñu mën cee jariñu ñoom ñëpp incha allah rabbi lu jëm ci wàllu koor gi alhamdulilah xam naa bu fekkee am na ndénkaan lu ñuy dénkaane day ci jublu gi ñu jublu weeru koor wi nga xam ne li ci des moom bareetul moo di ñaan sunu borom tabaraka wa mu àggale na ci ci jàmm te ànd akuk wér akuk tal gannaaw loolu ñuy dénk sunu bopp di dénk mboolem ku ñuy dégg nu teeroo ko li nga xam ne ñu baax moom lañ ko daan teeroo mooy tuub bàkkaar yi jégglu sunu borom tabaraka bari lool ay istixfaar lu ñu jégglu di jégglu sunu borom tabaraka wa taala na jéggal ndax kat weer woo xam ne daa ñëw di far bàkkaar ak di yëkkati ay tuyaaba comme agsi ci yow fekk say bàkkaar tuub nga ko ba mu jeex kon su ñëwee cër ba naroon a jëm ci far bàkkaar ya day faf ànd ak cër bay dolli tuyaaba ya rek ak di yëkkati daraja ya kon loolu mooy secret si tax asalafu saalix bu weeru koor mosaan jublu si dañuy dénkante tuub bàkkaar yi di jéggalu suñu borom tabaraka wa taala te baril ko lool nag ba keroo weer wi la ca des mooy teeroo ko mbég xam ne weer la woo xam ne li mu làmboo ci ay ngëneel ak i jagle ak yuy jëriñ aji woor ku ko xamoon dangay ngay ñaan yàlla sax faf at mépp nekk ramadan waaye ginnaaw dañoo tëbal nag fukki weer ak benn jël ci wenn def ko ko kon su jublu see dañ ko war a séentoo nu gën a tar na nit ka di séentoo lam gën a fonk te di ko séen ci jamono muy ñëw ndànk-ndànk kenn ku nekk am na loo gën a fonk loo xam ne buñ ne laa mi ngi ñëw boo ci xalaat bis bu ne waxuma la bis ya <laughs> wàññi bis ya sax waaye <coughs> da ngay wàññi waxtu ya ak di wàññi minute ya mën naa dem ba àgg sax ci di wàññi seconde ya ndax yàkkamti mu agsi kon noonee ci ni ñuy teeroo ramadan la bokk mooy teeroo ko mbégte la ca tegu mooy teeroo ko nag yéen yéene ju sell ak fas ko yéene woor nag def ci xol bi ne weer wii di ñëw di da nga koo fas yéene woor ba mat sëkk lu ca doonul ngànt su ko defee sellal yéene ja jëf ja sunu borom rekk tax dara ci ngistal wala ndéggatal nekku ca su ko defee yooyu bu ko jullit bi teeroo la koy mottali rek mooy la nga xam ne amaana démb ak bëkk démb ca la nekkoon bu ca nekkul woon it wéyegut mooy tàggat sa bopp nag ci koor balaa balaa ramadaan ak si ndax kat koo xam ne ramadaan rek moo lay boolee koor kooku moom mën naa tax koor metti ci yow ndax fukki weer ak benn ngay lekk ka naan man yàgg nga xëy wenn weer lekkatoo naanatoo loola mën naa metti ci nit ki waaye tàggatu googee nga xam ne dafa ànd ak tuyaaba ànd ak yaram bi di miin koor te baax loolu it nag ci wér-gu-yaram looli ci li ñuy teeru ramadan la bokk yàlla nañu suñu borom tabaraka wa taala ci weer wi ñu joxe ko ci aku ci wér aku tal naam cheikh abdallah jazakum allahu xayran jërëjëf cheikhana cheikh bi kii nee na li ñu tudde salaatu tarawih muy naafila ci weeru koor dafa dégg am ñu ni bidaa la ndax Omar ibn Xattaab moo ko njëkk def euh, te moom mu yaakaaroon ni bidaa moom ci ci diine bu ci baax amut mu ni daal loolu la bëggoon a leer bi alhamdulilah kooki wax ne naafila ci weeru koor muy salaatu tarawih bidaa la ndax Omar ibn Xattaab radiallahu taala moo ko njëkk def kooku de li mu wax waxi ku réer la war naa delloo gannaaw bu baax a baax jéem a jàngaat diineem su fekkee ku ko jàngoon la su fekkee daa am ñoom daan déglu ñu di ko wax wax yu mel noonu war naa soppi ñu muy déglu te déglu ñeneen ñoo xam ne ñoo ëpp xam-xam ñooña Omar ibn al-Khattab radiallahu taala anhu ci alxulafaa rachidun ci la bokk lépp loo xam ne kenn ci ñoom saxal na ko ci diine ji saxaaba yi di dund ak ñoom bàyyi ko ca nga xam ne loolu saxaaba yi dëppoo nañ ca tey day bokk ci sunnatul xulafa rachidin te seen sunna du jooyoo mukk ak sunna si yonente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam loolu moo indi alaykum bi sunnati wa sunnati al xulafa rachidin al mahdiyin yonente bi moo wax loolu moo di jàpp leen ci sama sunna ak sunna xulafa rachidun ndax ñoom ñaar kon lépp lu leen Aboubacar andi wala Omar wala Ousmane wala Ali mu bokk ci diine ji saxaaba ya nekk fa te kenn jógul taxaw ne ko du noona xamal ne loolu ci biir diine ji ci la bokk tey daa am dalil moo tax mu andi ko kon loola noonu la demee leneen la ca des mooy Omar ibn al-Khattab indiwul salaatu tarawih waaye yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci boppam moo ko indi li ma ta xam mooy yonent bi alayhi salaatu wasalaam musta bàyyi salaatu tarawih moom ci jëmmi boppam ramadan daf ko daan julli salaatu tarawih bu mu jeex bu demee ba ci fukki fan yu mujj ya mu def li atikaaf diggante julli ak jàng alquran ak tarawih lay def jullee ko ci mbooloo nag alayhi salaatu wasalaam def na ko ñetti guddi wala yent bis bu nekk mu gis mbooloo mi di gën a yokku ba nar a gën a bari mu bañ a génn mu xëyee mu ne leen ni ngeen ko dajaloo woon di xaar julli gi de yëg naa ko waaye <coughs> génnuma ndax damaa ragal ñu farataal ko ci yéen kon leeral na sabab su tax mu arrêté woon jullit mbooloo gi ragal ñu farataal ko ci aw xeetam te bu dekkee farata day mën naa diis euh, fàttewut julli ya nga xam ne moom la ko yonent yàlla Moussa doon laaya biir moom alayhi salaatu wasalaam muy jaabante di dem ak a ñëw tàmbalee ci juróom fukki julli ñu di ko ko wàññil ba muy juróom juróom yooyu ba léegi am na ñoo xam ne dañ koy sàggane mel ne dafa diis ci ñoom am ñoo xam ne ay pexe la ñuy wut ak ay laay ak ay yëf sax sax ba bañ di julli kon su fekkee xeet wi noona lañ mel kon nag ñu farataal leen taraawix boo xam ne dañ koy war a def mu gudd lool te diis yonent bi ko xam na mu daan defee taraawix kon la mu wax loolu mënees na koo dégg bu baax a baax waaye nag gannaaw boo xam ne génn na àdduna alayhi salaatu wasalaam lam doon ragal loola dañ na maanaam kenn mënatu ko farataal ndax farata jeex na gannaaw yonent bi génn na àdduna loolu moo tax Omar ibn Xataab ne ah yonent bi yàlla bii santaane woon kat li mu daan def kat sunnaal ko ragal ñi farataal ko ba tax mu génn àdduna kon la taxoon mu ragal loola dañ na kon àtte ba day dellusiwaat loolu mooy li waroon xam-xame usul yi di wax ne alxukmu yaduuru maa illatihi wujudan wa adaman bépp àtte bu nekk day ànd ak yilla ja li fa yilla ja nga fa àtte ba nekk ba su fa yilla ja nekkatut àtte ba tuutu fa nekk kon yilla ja taxoon àtte ba nekkatu fa mooy ragal ñu farataal ko yilla joojee dem na àtte ba day dellusiwaat existé toog place bi mu toogoon kon euh, lii moo tax Omar ibn Xattaab indi ko kon sunna yonente bi sallallahu alayhi wa sallam la wëlbati ku nekk sunnatul xulafa rachidin kon loolu kenn du wax ne biddaa la ci àdduna wala su fekkee ne biddaa la daanaka sooy ba nga ne sharia amul lépp biddaa lay daal di doon te loolu mustahil la maanaam jomb na lu mel noonu di nekk wallahu taala alam waffaqakum albaari jazakum allahu xayran cheikh bi kii mi ngi tudd Boubacar Sow nee na dafa am koo xam ne daal dañ koo bëgg a rendre hommage euh, ak defal ko njabootam boo xam ne dañuy def benn diplôme bu xaw a mag jox ko njabootam nee na nag dañ cee bëggoon a defaale photoom photoom bu mag joxaale ko ko mu ni luy atte euh, photo boobu ñu ci bëgg a defaale nga xam nañ ci defaale photoom muy photo bu mag ñu tiire ko bu mag Euh, joxaale ko mbokka mi mu ne ndax loolu dina dagan wala déet alhamdulillah rendre hommage koo xam ne dafa génn àdduna ñu bëgg koo defaral ak diplôme bëgg caa dugal fotoom laaj bi mooy moli lu muy jëriñ lu mu koy jëriñ ci bàmmeel ba fa mu tëdd moo te ñoo doyloo ñaanal ko mbokki jullit yi jullit yi war nañu dellu si waat ginnaaw xool euh, seeni yëg-yëg ndax mbaa sàccuñu ko mbaa amul yeneeni xeet yu yor seeni civilisation ak seeni doxin yoo xam ne na lislaam di xalaate ak na muy analyser ak na muy tëre wuute na ak ñële ñuy xalaate ak nañuy analyser ak nañuy tëre ñu fexe ba sàcc yëg yi jullit yi yëgatuñ yëg-yëgub diine waaye ñuy yëg yëg-yëgu yeneen i askan moom waa lu mel noonu amul jullit boo xam ne nekk na fi ba génn àdduna la mu gën a aajowoo tey ci kaw suuf mooy ñu ñaanal ko la mu gën a aajowoo mooy ñu ñaanal ko mboolem lam fag woon fii ci àdduna lu ca yàlla taxul woon mu def ko moom ci boppam sax ñàkk na ko diplôme yam amoon nag médaille yañ ko joxoon ak ndombay tànk yam takkoon ak diplôme yi yëpp yàqu na amatul njëriñ ndombay tànk yooyu tekkeetul dara amatul nekkatu fa te yooyu moo doon dox ba fàggul ko boppam yooyu tekkeetul dara lu tekki fa fa mu nekk mooy lépp loo xam ne dafa tolloog tudd yàlla jaamu yàlla julli ci yonent bi bàyyi bokkaale bàyyi mooy yàlla bàyyi ak mbon lii moo ko amal njëriñ ci bàmmeel ba moo ndax dese ne dara fii ci àdduna kay su fekkee ñaanal nañ ko ñaan nga dana ko fekk fa mu nekk kon loolu yi lañ leen di dénk mooy nañ ko ñaanal seen xel bu mu xalaat di def ak diplôme di ko ko yóbbu naan rendre hommage la wala leneen waxuma la nag di xalaat di jël apport di ko ci def loolu du doxinu lislaam du doxinu jullit des ko war a wattandiku naam jazakumullahu xayra jërëjëf cheikhana bi kii nee na dafa am feebar yal na ko yàlla wéral wéral mboolem jullit nee na feebaram daal mooy day génn ngelaw lu bari yéy saa dafay jàpp ba taxaw di waaj a julli ngelaw di génnaat mu ni ndax ci moment yooyu mën na continuer rek kàbbar julli wala nu muy def alhamdulilah ki nga xam ne dafa mënatula téye ngelawam moo ki mënatula téye ak ndoxam wala mënatula téye dugubam ñoo bokku àtte loolu la ñu tudde solos borom bi tabaraka wa taala nee na laa yukallifu llahu nafsan illa wusaha borom bi tabaraka wa taala du teg bakkan bi lu mënut ma mastataatum ragal leen yàlla na ngeen ko mëne kon jaamu yàlla am da koy defe rek ni mu ko mëne su fekkee ne munta toog lu tolloo kemtalaay yàlla li nit ki di julli te fekk dara génnul ci moom na fexe ba su waxtu julli jotee rek mu laab moom daal di dugg ci biir julli gi su ca xasee dugg nag luy xew lu mën a doon loolu yoonam nekkatu ci ni julli ba julleem jeex mu sëlmal daal di jaanam daal di wàcc la ca des nag mooy loolu yi ko dal muy ngelaw luy génn te mu ne su ko te su ci yàlla àndee fajkat yi mën nañ ko faj muy docteur yi kon bu mu ca sàggan bu mu dem ci benn docteur wala ñaar ñu ne ko li mënuñu ci dara mu daal ni kenn mënu koo faj amu kay na dem seeti yoon yi nu borom xam-xam yi leen ëpp xam-xam koo dem mu ne la mënuma ko wala gisuma feebar bi demal ci keneen kooku dana ko ëpp xam-xam wala mu mën koo gis wala mu yor appareil yu mu yorut kon diisul gaaw a tàyyi ci feebar daal di wax rek na seet nañ ko gisuñu dara kon nag góor góor lu jéem koo faj ndax loolu ci bare bari mën naa dellu ca la muy lekk mën naa dellu it jëmmi boppam ni mu fonke boppam ci wàllu yëngatoo sport ak ñàkk koo def ak wàllu naan ndox ak ñàkk koo naan yooyu yëpp docteur yi xam nañ ko su delloo buñ ko defee Euh, consultation yi ñu ko war a defal buñ ko ko defalee buñ noppee daañu ko mën a jox ay tegtal yoo xam ne bu fekkee tënku na ca sunu borom tabaraka wa taala mën na ko may wér wér gi yaram moo tax saa bu julli jotee moom mën naa def nii ma wax waaye bu mu daal di lu ci loolu rek daal di bayliku nag euh, su ko defee euh, bañ a faj boppam naam jërëjëf cheikhana jazakum allahu xayra cheikh bi kii nee na dafa fàtte julli gee ba xëy suba julli suba julli tisbaar ba pare dog koy fàttaliku nee na nu muy def alhamdulilah ci fàttee julli gee ba ca ëllëg sa mu fàttaliku ko da koy daal di julli rek yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na képp koo xam ne da nga fàtte ak julli wala nga nelaw ba waxtoom weesu waxtoom mooy waxtu wa nga ko fàttaliku wala waxtu wa nga yeewoo ca nelaw ya amul weneen waxtu wudul woowa noonu la ko waxee de naam jërëjëf cheikhana jazakumullahu xayra cheikh bi kii nee na bëñam dafa damm nee na nag mu bëgg a poose beneen bëñ wan nañ ko bu kawsu wan nañ ko beneen boo xam ni day mel ne yax comme bi damm ci moom daal bi jóge ci moom muy laaj daal ak tey poose bëñ ndax dagan na ci sharia wala déet alhamdulilah day dagan ci faju loo xam ne du dagan ci taaru day dagan ci faju loo xam ne du dagan ci taaru loolu nag ab régal la ki nga xam ne dafa aajowoo bëñ ndax bëñam dafa damm kooka mooy tànn rek la nga xam ne daal wóor na ko ni lii nekkul lu sobewu wóor na ko ni it nekkul lu xaraama def ci sa gémmiñ loolu mu tànn ko def ko ci gémmiñam mu wutu bëñ bi wàññiwul dara moo xam kaw si la moo xam yàq la moo xam or la moo xam xaalis la lu mu ca mën a doon su boobaa rek ginnaaw fajoo tax a jóg day daal di dagan naam waffaqakum allah baarakallahu fiikum cheikhana cheikh bi kii mi ngi tudd Mouhamed Lo ginnaaw moom it bi mu la ñaanalee lool yal na yàlla nangu ñaan yépp nee na moom dina yor xaalis yi saa mu yore trente millions yi saa mu yore cinquante millions Euh, su azaka jotee bu ko yore da koy génne mais yeesa mën na yore cinquante million nii balaa weer mu dugal ko ci ay otoog ay kër yu demee noonu xam naa ci yooyu lay jëngatu di jaay ak yooyu ba nga xam ni weer wi mu war a génn azaka bu xooloon boo madu sax lam yore du weesu dix million wala cinq million waaye mën naa demaat après ay weer rek cinquante millions yi wala lu ko ëpp sax ñëwaat dajaloo ci ay loxoom mu ni buy génne azaka ndax Euh, liquide bi nekk ci loo loxoom rek lay génn azaka wala oto yooyu yaa kër yooyu yëpp lay calculer jënd génn ko azaka wala na muy def alhamdulilah mbokk moom yi yàlla na borom bi tabaraka wa taala nangu ay ñaanam te boole nu ko waaw noonu mu wax ne noonu lay liggéeye day ñu bari ci commerçant yi noonu la ñuy liggéeyee mooy alal ju bari day daje ci seen loxo léeg-léeg ñu dem ba alal ja soppi ku nekk marchandise ba li ñu defee su xaalis tuuti bari su loolu amee nag dajeeg waxtu wi ñu war a asakaal lépp loo xam ne da ko jënd ci lu muy war a jaayaat loolee na ko na xool luy njëgam xool itam lim dese ci xaalis moo xam ni nga ko waxee fukki million la wala juróomi million wala lu ko yées kon dana xayma xaalis bi mu yor xayma marchandise bi nu mu toll ci xaalis su noppee yooyu yëpp mu daal di koy asakaal ci xaalis bi nga xam ne moom la yor maanaam daal di génne deux virgule cinq pour cent ya muy asakaam noonu rek la ñuy asakaale marchandise la nga xam ne da koo jënd nag te doonut lu muy jaayaat comme oto bu muy war wala kër gu muy dëkk wala yu mel noona loola moom buy xayma asaka du ko ca xayma waale waaye nag danañ ca mu bañ koo def ngir daw asaka fekk ba mu koy def daw asaka taxut ndax nit ki mën naa yor asakaam war koo génne dem ba mu jub dem ba waxtu wa di bëgg a jot mu daal di gaaw jënde ko kër daal di ñëw toxal ay bagage am ñëw dëkk fa wala mu daal di gaaw jënde ko oto bu cher yor ko di ko dawal su ko defee asaka duutu ca war waaye fekk la nekk ca xol ba mooy day daw asaka loolu nag fi mu jantaloo maanaam fi man a amee mooy réew yi nga xam ne asaka yi état mooy ñëw di ko jël si ci nit ñi loolu amaat am na fi mu toll nii ay réew yoo xam ne ñi war a joxe asaka ñëpp bu waxtu wa jotee dañuy ñëw auditer leen maanaam dañuy yebal ay secrétaire yu jóge ci état bi yoo xam ne buñ dikkee ñooy contrôler kenn ku nekk auditer la ba xam li nga am ci bénéfice ci at mi ak li nga yor ci alal ñu génne asakaam delloo ko ci keesu état bi comme ni niñ koy defee ci impôt ci yeneen réew yi l'islam it noonu nag la daan doxe ci jamono yonent bi ak i saxaabaam ak état islamique bi nga xam ne moo taxawoon seen gannaaw yépp parce que su ma see jot état mooy yebal ay éléments ñu ñëw topp nit ñi ñu joxe seen i asaka waaye su dee kenn ku nekk nag da ngaa libre ci génneel sa asaka comme réew yi nga xam ne dañoo dem ba charia attewatuñ ko su boobaa loolu moom daanaka xawuta mën a nekk maanaam nit ki mënta war boppam di naxanteeg boppam di di di gaaw di jaay ay ngir ba a génn asaka xaram wala muy jënd ay yëf ngir bañ a génn asaka loolu moom jàpp naa ne eh, ci sun situation bi ñu nekk lu mel noonu jamtalu wut maanaam warta mën a nekk wallahu taala aalam jërëjëf cheikhana jazakum allahu xayra cheikh bi kii mi ngi tudd Omar mi ngi woote Algérie nee na dafa am lu ko jaaxal foofu daal ci naari day am ñoo xam ne suñuy julli ñoom dong ci julli yi nga xam dañ ko war a biral nee na bu boobaa kooku du jàng ci kaw nee na nag bu leen ko laajee ñuy loolu sunna la dagan na lu mel ne suba ak timis ak gée mu ni ndax loolu sunna la wala lu ci nekk ci euh, li ci sharia wax alhamdulillah yonente bi sallallahu alayhi wa sallam jàngale ci julli mooy jullik suba ak ñaari rakkaay yu jëkk yooyu timis ak ñaari rakkaay yu jëkk yooyu gee dees leen di biral moo xam da julli jiite aw nit wala dangay ngay julli yow dong loolu yi mooy sunna waaye nag am na ay benn benn firnde yu sax yoo xam ne tax na waroom xam-xam yi ci seeni ngir ñu am ci tuuti ak juuyoo ci ndax njàng moom yi ngay jàng su fekkee yow dong yaay julli euh, lan moo di àtteem nañ ci ne bu fekkee ne day jàng koo xam ne moom rek moo koy julli te ñeneen nit nekk fa nekk ci seen yeneen du jaadu muy jàng jàng moo xam ne day yëkkati baatam ca kaw di leen jaxase man nañoo nekk di julli seen julli naafila wala ñu yor seen alxuraan di jàng kon foofu dëppoo nañ ci ne moom na suufeel baatam mu des nag foo xam ne amul benn ngànt loo xam ne mooy dox digganteel ak jàng ca kaw ndax sañ na yalu ci foo xam ne dañ faa war a birale wala déet ñu mel ne ngirum al imam Shafii dañ ne loolu moom dañ koo sopp luñ sopp nag soriwut ak li xanaa bi lay wax muy da ngay tànn rek loola ci gënal bu la neexee nga jàng ca kaw bu la neexee nga jàng ca suuf yooyu yëpp nag kenn ku ne ci kaw ay firnde nga ko teg yoo xam ne xëy na dellu ca mën naa guddal fataawa waaye daal lañ mën a wax foofu mooy biral ga mooy la gën waaye su yaloo it nag ak julleem yàquwut te dara waru ko ci naam waffaqakumul baari jërëjëf cheikhana cheikh bi soxna si bitim réew lay woote nee na sunna tamit nag lay góor góorlu pour dund ko nee na day muuroog lépp waaye nee na yeesaa su wéetee moom dong ak boroom këram ci seen biir kër ndax dina dagan mu solal ko périg ngir taaroo ko ñoom ñaar rek alhamdulillah soxna soos yi nga xam ne ñu ngi góorgóorlu ci sunna yàlla na ko ci yàlla saxal dëgëral ko ci te saxal lu ci noonu ñëpp dëgëral nu ci bu dee ci wàllu fatwa day waroom xam-xam yi am na ci ñoo xam ne wax nañ daganuk lool yi muy laaj muy pirig sol ko ci kanam sa boroom kër ndax su fekkee <coughs> gis nañ ne lu yokk ab taar la te nekkul loo xam ne yokk kawar lañ ko mën a tuddee ndax jëliñu kawar di ko fas ca kawar ga moo tax lenn ci waroom xam-xam yi ñu ne loolu de mën naa nekk su fekkee ne feeñalu ko waaye bu dee ci wàllu orientation nag ndax al ifta ak al irshad nag ñoo ànd bu dee ci wàllu irshad muy orientation duñ ko laay biir nag ci loolu ndax li ñu tudde originalité ci jigéen dafa doon lu am solo su fekkee ne taar bi ko yàlla jox ni mu ko bindee lam yor ci melokaan yoo xam ne yu ko sunu borom jox la ci wàllu taar mu mën koo defar mën koo sellal mën koo jox yitte su fekkee ne yooyu yëpp def na ko ba noppi eh, xeeb ko um yaakaar mukk ne yeneen i yëf yu muy jël di ko këpp ci boppam wala geneenu kawar gu ñuy fas ci kawar bu mu yaakaar ne loolu moo koy jox ak taar jëkkër ja su fekkee ne ku am xel mu neex la muy li ñuy tudde gu nga xam ne eh, li mu ne jàkk nii doonte dafa rafet ci moom waaye dana xam ne lii bokkul ci soxnaam su boobaa bu ko taaroo it dana yëg ne taar bu manqué la kon la nga xam ne mooy la nekk ca moom ka ko doon bëgg bëgge ko noona jàpp naa ni ittewoo loola moo xam kawaram daa gàtt wala dafa mel neneen mën na ko yittewoo ba melal ko melokaan woo xam ne boroom këram dana dem ba nii mu mel te yàlla binde ko noonu foofa la gisee taaraam taaram te loolu mooy taar ba dëgg dëgg dëgg waaye taaroo loo xam ne bokkut ci yow moom nit ñi xewal nañ ko ci jamono waaye lorom bari na te it amul originalité bi nga xam ne moo tax ñuy wax jël ay we mon say loxo nga monté ci yeneen i we bu xaw a mel ne euh, moom doo xam lu mu doon ci àdduna euh, say xef nga monté ci yeneen i xef sa kawar nga monté ci keneen kawar lenn lu nekk rek nga def ci loo xam ne bokkut ak la la yàlla bindee woon ma moom kon loo dese léegi deseetoo dara kon daal jàpp naa ne nit ñi jaar nañu dellusiwaat xalaataat xam ne borom bi tabaraka wa taala xakim la kum bind ku nekk nam la binde am na lu tax mu binde la noona te wóor na ne noona mooy li gën ci yow mooy li gën ci wérgu yaram mooy li gën ci sa cosaan ak sa aada ak sa diine ak sa originalité kon loolu yi lu mat a bàyyi xel la ci diggante way dencante yi naam jazakum allahu xayra jërëjëf cheikhana cheikh bi kii nee mosoon naa jàng ci fatawa xadiis buy wax ni nit ki su faatoo jëfam yu baax yëpp day dagg ba mu des eh, ñett yoo xam ne dina koy jariñ bokk na ca doom ju baax jum fi bàyyi ma koy ñaanal mu ni ndax doom jooju su koy ñaanal moom néew bi da koy sentir fa mu nekk wala déet alhamdulilah mu koy sax na ci xadiis yonente bi sallallahu alayhi wa alihi doom jigéen génn àdduna di ñaanal baayam walla ndeyam loola daf leen di jëriñ waroom xam-xam yi it nañ ci ne ñaanal ab néew da koy jëriñ day jëriñ kuy dund di jëriñ ku faatu loolu moom boroom xam-xam yi juyowuñ ci ndax nag ñaan gi ñu ko ñaanal moom da koy yëg xam ne diw sàngam ñaanal na ko tey wala déet sax na ci ab xadis yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di ca wax ne nit ki ci bàmmeelam dana di xëy gis ay darajaam di yokk ki nga xam ne ña koy xéewal ca xabroom fa mu nekk ca barzax jekki-jekki di gis ay xéewalam di yokk muy laaj sa boroom lii moom fan la jóge ñu ne ko ci ñaanu sa doom ji ci la jóge kon kat loolu moom buñ munta wax it ne ma ngay ñaan muy dégg it nañ xam ne njariñul ñaan ka moom mu nga cee teg bët moo tax leen ci waram xam-xam yi nañ koy misaale dañuy wax ne buñ toogee foofa ñoom ci bari sax di yëgoo ña ca mën a yëg seen moroom bu ñu xëyee dañuy laajante ndax jotagun nga dara tey ma nga Ibnu Qayyim ci téeréem boobu ñu wax ak ruux détaillé na lool ci buntu boobu yi am ñu ne ko jot naa tey de nangam ak nangam xëy na loola day dellu rek ci xadis boobu yi nga xam ne day wax ne daraja yi dañuy yokku ndax soo gisee mu yokku tey nga laaj sa borom mu ne la ci ñaanuk sa doom la boo léegi boo gisee mu yokk waat nga xam ne doom ja dafa ñaanaat bis boo xëyee gisoo dara yokk nag nga xam ne tey jii kenn daa ñaanut wala ki ñaan ñaan nga daa nanguwut li ca nekk mën naa am yal na borom bi tabaraka wa taala yaram képp koo xam ne aji làqu la te xéewalinu noonu ñëpp jëf yu rafet ak mujj yu rafet ak wuy ci borom tabaraka wa taala fekk jiital nan loo xam ne yërmaa day sunu borom tabaraka wa bu ko fekk tee rek ñëpp ànd doo texe naam jërëjëf cheikhana tontu bi leer na barakallahu fikum cheikh bi soxna si nee na moom day pappam faatu na yaayam it la nekkal donte ay rakki papam ñi ngi fi waaye yaayam a ko yar gis na nag kum bëgganteel moom bëgg na ko yaayam it bëgg na ko waaye ay mbokki baayam daal ne ko dun la ko may ndax bu ko leen waaso donte ñoo bokk ñoom ñëpp nekk ay làkkat waaye ñu ne daal la mëkk duñ ko ko may mu ni ndax am na droit yaayam maye ko wala ay mbokki yaayam maye ko wala nu muy def alhamdulillah ci chariatul islam ni mu tëre mooy jigéen kilifteefam muy wilaayaam dafa féete ci wàllu geño maanaam baayam ak ña bokk ak baayam su fa bàyyam nekkatul ñu bokk ak bàyyam ñoo koy sës ba ci doomam ju góor sax mën na ñëw ba agsi ci moom ñooña ñoo koy sañ a maye ci nuñ ko mën a waxe su fekkee dañoo gànt nag ngir ay sabab su fekkee sabab yooyu yu dëgër la fekk leen ca ngànt la mooy la jaadu su sabab ya dëgërul nag ñaari solution rek moo am benn bi jéem a waxtaan ak ñoom ba convaincre leen ñu dellu gannaaw ci position boobu ñu taxaw wala su fekkee am na attekat boo xam ne day atte ci charia te charia jox ko pouvoir muy sañ-sañ boo xam ne mën naa tax mu dindi kilifteefu nit jox ko keneen su boobaa kooku mooy beneen solution ba waaye yaar yooyu su fekkee amuñu maanaam ma ne su ta waxtaan ak ñoom ba convaincre leen te kenn mënu ko ñaareel ba ci suñu qaadi joo xam ne ji atte ci wàllu charia la kooku mënuñoo wëlbatiku ne yaayam da koy maye wala nijaayam da koy maye loolu foofu la sunu xam-xam tollu chariatul islam wallahu taala alam jërëjëf cheikhana jazakumullahu xayran cheikh bi kii nee na danoo ni képp koo xam ne danga ngaa mooy yàlla ci benn bërëb foofu loo fa jaamu yàlla du ko nangu mu ni su fekkee ne nit ki dafa mooy yàlla ci néegam nag ndax kon amatul droit dafa julli wala déet wala nee na wax ji wér na wala wérut ci charia alhamdulilah lool yi mu ne dafa gis wala mu dégg ñu ne ku mooy yàlla fi barab loo fa jaamatu yàlla gisu fa nangu loolu li jàpp ma ne lu wér la dajewuma ak moom fenn te dégguma itam benn boroom xam-xam bu ko wax kon sooy boo ñu jàpp rek ne lu taxawut la ci chariatul islam ndax dëppoowut sax nag ak ruuxuk sharia xëy na jombul bokk na ci ak tuub bërëb boo xam ne béréb bu yàqu la maanaam environnement boo xam ne xam nañ ne nit ki su fa nekkee euh, day yàqu man su tuubee itam mu tuub ñu ne ko bokk na ci sëkk tuub mat sëkk béréb bii da nga fiy jóge dem seeti beneen bërëb lu ko waral mooy ñuy dund foofa su fa nekkee dafa jéem a dund diine yi du ko man kon loolu ci xeeti gàddaay ci la bokk waaye du caagi ne béréb ba boo fa jaamu yàlla duñ ko nangu loolu moo tax bërëb boo xam ne it bërëbu jaamukaay ay xërëm la woon nga xam ne siiw na ca lool danañ di teet ku fa ñëw di fa jaamu yàlla loola lenn ci waroon xam-xam yi yaxal nañ ko am na sax ab xadis bu ci rot donte ñàkkul ay jam-jam waaye ala kulli xaal su fekkee am na barab yoo xam ne dañ leen di wattandiku ci wàllu jaamu yàlla lu mel noonu moo koy waral waaye di caagi ni nit ki jaamu yoon fii yàlla su fi jaamatee yàlla yàlla du ko nangu déedéet nit ki fa mu doon mooyee yàlla su fekkee ne tuub na tuubam rafet kenn du ko wax ne génnal sa kër dem wuti beneen kër déedéet na mu fa doon dunde lu baaxul na ko soppi di fa dund lu baax ndax bàkkaaram boobee mën a far eh, tiyaabaam yooyu mën a far lépp loo xam ne lu ko jaaroon ci bàkkaar la naam barakallahu fiikum cheikhana jazakum allahu xayran cheikh bi kii mi ngi tudd Abdoulatif Cissé yàlla na ko yàlla génn ci xat-xat yi nekk mook ñoom fa nekkal yépp li muy laaj mu ni e, ñoom daal ci bërëb e, ba ñu nekk day saa dañuy doon bokk nekk dañuy nekk di waxtaan am nag koo xam ni dafa ni daal moom li mu li mu xamoon ñu koy wax mooy ndaw soo xam ni nit ki njaaloo naag moom ba am ci doom kooku mënatu koo takkati ñu ni doom jooju sax tamit encore du dugg àjjana muy laaj loolu daal lan mooy li ci wér ci sharia alhamdulilah njaaloo day lu bon la lu bon la ci wàllu diine waaye lu bon la ci wàllu xel waaye lu bon la ci wàllu dundiinu askan muy mbirum social bu de ci wàllu diine sunu borom tabaraka wa taala da ko xaraamal xaraam gu toro tara tara tudde ko faaxisha waxit ne bu leen ko jege wala taqrabu zina la wax ne bu leen jaaloo waaye bu leen jege njaaloo xaram bu tar la bokk ci bàkkaar yu mag yi ci dëppoo goo xam ne boroom xam-xam dëppoo nañ ci loolu xelit nanguwu ko ndax nit kenn <coughs> ku nekk ña nga fonk ñu sës ci yow ci aw jigéen bëggaloo leen ko moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ke ñëwoon ci moom ne ko damaa bëggoon rek nga may ma ma njaaloo yonent bi alayhi salaatu wasalaam dafa topp jigéen ñi ko gën a jege laaj ko ndax bëggal nga leen ko tàmbalee ci ndeyam jaar ci ab jigéenam bàjjanam tàntaam ku mu wax mu ne ko déedéet déedéet déedéet ba mu jeex mu ne ko jigéen ñëpp nag lool lañ ñoom it seeni bokk bëggaluñ leen ko kon xel ci boppam ak fitra bi yàlla bind nit bëggul njaaloo leneen li ci mooy ci wàllu social bari na ay askan yu jaxasoo yoo xam ne ñuy juddu léeg jigéen ji ci boppam sax nga xam ne ab njaalookat la du ku jur doomam da koy wóor ne doom ji juddu la rek waaye ndax diwoy bàyyi la wala diw la wala diw la du xam su ko doon jiiñaati da koy jiiñ kenn waaye amu ci yàqin ndax moom la kon loolu lu jaxasoo la beneen bi doom ji nga xam ne ñu ngi ko ci lor mu nekk ci biiru askan di dem ak ñëw te yëg ne amul baay loola doyatul mu yëg ne daa judd ci lu dul yoon loolu ab yoon bu diis la ci bakkan ànd ak loolu loolee mu dégg waaja wax ko wax ne ku njaaloom nit du too ko mën a takk ba faaw te doom jay du dem àjjana loolee mu dégg moom wérut amul cosaan ci diine ay wax la rek njaaloo lu yàlla xaraamal la lu yàlla xaraamal du xaraamal la daganoon la daganoon moom day continuer nekk ko dagan su fekkee kim njaaloo loo kum dagana takk la kooka dem ba euh, laat mu wóor ko ne fi nekk nii ku ma ne sa takk la su boobaa mën na koo takk te du wàññi dara kon loola moom la mu déggoon foofu wérut leneen la ci des doom jooj yi ñu wax ne du tàbbi àjjana loolu moom waxi neen la yoo xam ne teguut fenn jaaroon na fi yoon yooni yoon ci ñu doon wax naan doomi njaaroo du nekk imaam ak yu mel noonu yooyu yëpp ma ne doonte am na ay téere yu ko yaxal waaye dara wéru ci doom ci judduwul ci yoon bakkaar ba du bakkaaram bakkaarub ña ko jur la sunu borom tabaraka wa taala daf ne wala taziru waziratun wizra uxra bakkaar du wàlle ka def bakkaar mooy gàddu bakkaaram waaye du jóge ci moom di dem ci keneen kon loolu moom wér moom ñëpp yam bal mën naa gën sax nit ñi judd ci yoon su fekkee ne daa juddu jaar ci yoon ya nit baax ne daan jaar aw ci siraatul mustaqim jàngub xam-xam góorlu ba doon nitu diine jàpp ci sunna jàpp ci alquran al karim kooka day mën naa dem ba askan woom nekk sax mu gën leen doonte daa ji duul woon ci yoon yàlla yebalul ay malaayika yoo xam ne su nit faatoo nekk ci bàmmeel suñ ko suñ suñ leen yee di leen laaj dañ leen di laaj ku la jur kuy sa ndey wala kuy sa baay wala kuy sa nijaay wala kuy sa sëriñ wala yooyu duñ ko laaj la laaj mooy yow ci jan diine nga nekkoon yow yonent yàlla bii eh, noo ko gisee woon ak say jëf yooyu lañ lay laaj ëllëg waaye kenn du la laaj ci ak gan anam nga juddoo woon wallahu taala alam waffaqakum allah jazakum bi soxna si nee na euh, ginnaaw bi mu joteeg boroom këram ba sangu farasa nee na dafa jug di julli mu sentir am leneen lu génn ci moom euh, nee nag du du du du deretu mbaax dara waaye ndox mu ni nu muy def alhamdulilah kiy julli ba mu yàgg mu yëg luy génn ci ak soofam day nga xam ne am na yàqin ci ne dafa génn kooku moom ak julleem yàqu na moo xam ne loolee génn lu mu mën a doon euh, su fekkee daal bokkul ñi nga xam ne dañ leen a nattoo li ñu tuddee salas muy loo xam ne day génn te mënu koo téye mënu koo maîtriser day génnal boppam su du loolu ak julleen moom yàqu su ko defee na muy def rek mooy dagg julli ga dem nemmi ko boppam ba xam lool yi doon génn lu mu doon su ko defee mu raxas ko ba mu set bu dee daa mu jàppaat su ko defee ñëw di julli waaye ca la moom yàquwut ala kulli xaal wallahu taala alam baraka allahu fiikum wa jazakum allahu xayran waffaqakum allahu lima fihi alxayr wassalah ci yàlla na la yàlla sàmmal euh, yàlla defal la tawfiq ak taysir defal ñu ko defal ko mboolem jullit kon bokk auditeurs yi fii la ñuy yemandi seen émission Al Fatawa ba beneen ay bis wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa mbokki Sénégal mbokki àddina rawatina yéen ñi féete fii ci diwaanu Njàmbur ak li ko wër ndaje bi ngeen doon xaar si na ginnaaw xaar ak mbas mi di Covid 19 juróomeeli édition journée islamique et culturelle de la rajo Leral FM 104.6 de Louga ñëwaat na juróomeeli édition bi ñu jàpp ko ci ñaari fan jàpp ñeenti fan ci yor avril at 2022 fële ca place publique Mansour Bouna jàkkaarloog mairie El Hadji Djili Mbaye seen programme diine bu neex seen programme bu am solo seen programme bu fasantikoo ñaari fan ci weeru avril bu 9h jotee ñu ànd ak yéen ci cérémonie officielle bi sous la présence d'honneur d'El Hadj Bouya Amar gouverneur de la région de Louga de madame Mariama Traoré préfet de la commune de Louga monsieur Moustapha Diop maire de la commune de Louga monsieur Amadou Mbéri Sila président du conseil départemental de Louga docteur Eliman Ndiaye directeur Darul Istikhama imam Galadia Ka président mouvement Alfala Docteur Abdallah Lam, Amir Jamaat Ibadu Rahman, Cheikh Ibrahim Halillo, prédicateur. Docteur Mohamed Abiboulassi, directeur Daro Iman. Cheikh Mohamed Gueye, président Mouchaf Ibnu Oumairi. Oustaz Makhtar Fall, président ONG Abi de Louga. ak bépp maire commune bu féete fii ci région de Louga. famille feu El Hadji Amadou Sakhir Lo bu Koki. docteur pharmacie Serigne Sambay bu Louga. monsieur Abdoulaye Sarr MG African Sport et Stratégie kilifa yooyu yëpp ñu leen di xaar ci cérémonie officielle bi ak ndaje bu am solo yemoo ko conférence bi ñu war a ànd ak docteur Mouhamad Ahmad Lo bu 9 jotee docteur di ci waxtaan ci la méthode islamique pour un développement socio-économique et culturel bu 22h jotee ñuy ànd ak yéen ak ndaje bi xale yi doon xaar yemoo ko ANACIM yu neex ak waa troupe xale yi nga xam ne ñoo féete fii ci diwaanu Louga le a ak yéen tamit ci journée alxuraan di concours alxuraan bu am solo rajo Leeral FM lëkkaloo ceeg fédération nationale des écoles coraniques du Sénégal képp ko daara yitteel ndaje boobu bul ko wutee le 3 avril bu 22 heures jotee yéen jigéen ñi yéen a ko moom association soppe leeral fm taxawal opération kay muuru foofee ca place bu na jàkkaarloog mairie bu Louga waaye tamit dinañ ci ànd ak yéen yéen ndongoy ci loolee di exposé bi nga xam ne dafa jëm ci technique de dissertation philosophique ñu koy animé dañu féete foofee te bees consulting voyage bu Dakar yemut foofu dinañ ci ànd ak yéen tamit ci remise de cadeau waaye tamit ay sketch di théâtre ak waa baytul atfal le 4 avril ku ne 4 avril sa xel dem ci l'indépendance bu fetu indépendance bi jeexee ñu ànd ak yéen ci journée jàng du wees buñ nee jàng du wees xel yi dina dem ci njàngam diine ci ñi nga xam ne nag ay adulte lañ ba ci ñi nga xam ne tamit dañuy soog a door journée jàng du wees fële lay amee ca place Mansour Bouna Ndiaye jàkkaarloog mairie bu Louga kon mbokk yi ak yéen jigéen ñi bu ko kenn wute bu 22 jotee ah mbokk yi ñu sañ sawaat ba rafet delluwaat fële ca place publique ànd ak xale yi ci anachid yu neex ak troupe yi nga xam ne ñu ko ci diwaanu ndakaaru mbokk yi kon programme baa ngi noonu di juróomeelu édition journée islamique et culturel bu rajo Leral FM 104.6 de Louga rajo Leral FM di ci invité ak di ci woo yeneen rajo yi nekk fii ci biir Sénégal rawatina ñi féete fële ca Keppaar ca diwaanu Kaolack leeral bu Podor leeral bu Ziguinchor ak waa Salam bu Mbàkke ñëpp ñëpp ñu ngi leen di wow ci ndaje mu am solo boobee yéen a ko doon laaj yegsi na juróomeelu édition journée et culturelle de la radio Leral FM de Louga du au avril à la place Mansour Bouna en face mairie El Hadji Djily de Louga kon bu ko kenn di leen woo rajo Leral di cent quatre point six لو yow mi am lu la ump ci sa wàllu diine jaaxle jeex na leeral fm jagleel na leen seen émission bi di alfatawa alfatawa di émission buy tontu seeni laaj yu jëm ci seen wàllu diine àllarba bu jot vingt et une heures jàpp ngeen ci ànd ak al oustaz abdallah baba dieng mu ci feggoo ak ak docteur mouhammad ahmad lo ak seen émission bii al fatawa ku am ak laaj jëmale ko ci émission fatawa mën nga koo bàyyi ci numéro bii 77 396 42 42 nga mën faa bàyyi sa laaj ci whatsapp bi kumpa tàggalikoon ak yéen ci lu jëm ci seen wàllu diine azamatu